Abdou Mbow damay dem bureau su ma fekkee dara ci poosam sax dama koy nangu mais bu ñu génnee ci mbedd mi <laughs> c'est autre chose il y a pas d'animosité entre Taxawu et Pastef non c'est de la politique c'est deux grands partis qui qui qui veulent conquérir le pouvoir du ñàkk nag entre militants du ñàkk même entre leaders mu am ay ay ay ay ay rakam PDS amul lu ñu fi dajul ak moom pourtant on a fait intercoalition te gëm naa ne l'avenir du Sénégal mu ngi entre le Taxawu le PUR le Pastef ak Déthié Fall ak Habib Sy le le le Yewwi originel